alhamdulillah walsalaatu walsalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa man walah amma baad mbokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ñu dig delsiwaat ci ñaari xutba yi weesu li ñu tàmbali woon muy waxtaane lu am solo ci mbirum fonk waxtu tomb am na tomb yu jàlloon am tomb yu des tomb tey bi mi ngi gën a jëm ci ay mbir yoo xam ne dana dimbali jullit bi ngir mu mën a wattu waxtoom man koo fonk su loolu jàllee yeneen mbir yoo xam ne mooy yi nga xam ne ci la jullit bi wara a paase waxtoom la jiitu yi nga xam ne ci yi nga xam ne dafay dimbali jullit bi ngir mu mën a wattu waxtoom moo di xam mag ñu baax ña muy asalafu saalix nañ doon jëf jëflente ak waxtu xam ngeen ne wax xutba bi weesu ci lool la jëmoon ku nekk xam na ne su fekkee xam na magul islaam ñu baax ña saxaaba ya ak taabiroon ya ak ñañ yar ak ña leen roy dangay gis ne ku jàng seenu dund jàng niñ doon jëflanteeg waxtu dana xam ne ñooñu ñooy ñi gënoon a xam nit ñi valeur bi nga xam ne waxtu am na ko su ko defee loolu dana ko mën a jàpp ndalal lool mu mën a jariñu ci waxtoom kon jàngat doxalinu ñooñu ak seenug dund bokk na ci yi baaxe jullit bi dimbali ko ngir mu mën a fonk waxtoom ñaareel ba mooy nit ki di réglenteeg boppam mooy muhaasabatu nafs bañ a bàyyi rek sa bopp noonu ne man baax naa mat naa jeex na waxu kay dafa war a dellusiwaat di xoolaat boppam ci mbirum topp yàlla na ko ñu baax ña daan defe buñ xëyee bis bu nekk bala ñoo tëdd xool bis boobee lañ yendoo lan lañ fa jot a am ci aw yiw ak lan moo leen fa jot a faat ak lan moo leen fa dal ci ay xeeti rëcc rëcc su ko defee la ñuy fanaane mooy bu ñu xëyee suba yiw waleen faatoon ñu jéem koo am ca bis ba ca tegu su ko defee yamanki woon ñu jéem koo mottali rëcc rëcc ya leen daloon it muy xeeti bàkkaar ak yu ko nuru ñu fexe ba bañ caa tabbiwaat kon jullit bi war naa xool boppam bisam bi ci lan la ko jeexal waxtoom wi ci lum nekkoon su ko defee nga xool ndax say tuyaaba dafa yokk wala daa wàññiku ndax say bàkkaar dafa yokk wala dafa wàññiku ci bis boobu kon loolu bokk na ci liy dimbali nit ki ci mu fonk waxtoom ñetteel mooy tànn àndandoo yi ñi ngay àndal fexe bañ doon ñu fonk seen waxtu loolu bokk na ci liy dimbali nit ki ci mu fonk waxtoom ndax kat ànd ak nit ñu baax ñi ak jaxasoog ñoom ak jege leen ak roy leen kooku day dimbali nit ki ci mu fonk waxtu day dëgëral nit ki ci mu mën a nekk ci li koy amal njariñ li ko dul amal njariñ mu gaaw koo bàyyi gaaw koo sori comme li nga xamee ne safaan ba muy ànd ak ñu tayeel ña ak sànkkati waxtu ya ne loolu dafay sànk dundu doomu aadama daf koy perteloo te kenn ku nekk xam na ne nit boo ko bëggee xam lan mooy melokaanam lan mooy jikkoom lan mooy mbaaxam walla safaan ba dangay xool ay àndandoom moo tax saxaabi yi bu mag muy Abdullah ibnu Mas'ud day wax ne boo bëggee xam waa ji mooy kan xoolal ka muy àndal boo xamee ña muy àndal rek danga dal di xam moo mooy kan moo tax woykat ba ne bu fekkee ne dangay wuti àndandoo tànnal ñu gën a baax waaye bul ànd ak ku alku mukk kooku day alku yóbbaale la mu ne boo dee laaj bul laaj nit ki ne mooy kan waaye laajal ña muy àndal ñooy ñan soo leen xamee rek da ko daal di xam ñeenteel ba bokk na ci yi dimbali nit ki ci mu mën a fonk waxtoom yi ngay def nga fexe ba di ko séddale bañ a nekk ci lenn rek loo xam ne bés bu set da ngay mel ni machine jaaraat fa nga jaaroon loolu day tax bakkanu doomu aadama yokkat waaye boo defee wii yiw tey boo ëllëgee nga soppi ko ci waxtu woo defaat weneen boo ëllëgee nga defaat weneen waaye bu dee wenn waxtu nga wut woo xam ne saa bu jotee rek ci nàngam kese kese nga nekk loolu bu yàggee ci xeeti yiw yi mën naa dem ba yokkat loola ci mbir wala boo koy def day mel ci yow ne aada waaye day duutu nuru jaamu yàlla juróomeel ba mooy bokk na ci yi dimbali nit ki ci mu fonk waxtoom te jàlloon na ca la weesu mooy mu xam ne waxtu wi lu ci weesu jeex na du delseeti bis bu romb dootu delsi waxtu wu jàll dootu wàññi kuy delsiwaat ab minute wala ab seconde sax bu xas weesu weesu na kenn mënu koo delloo delloosiwaat ginnaaw kenn mënu koo delloosiwaat nag su fekkee defoo ci woon aw yiw yiw woowu mënoo koo dab dabaat sax mënatut a delsiwaat loolu moo tax al imam al xasan al basri rahimahullah muy wax ne bis bu jàll bu nekk dafa mel ne ma ngay wax ak doomu aadama ji ne ko yow doomu aadama wala bis bu ñëw bu ne danaan ko man day bis bu yees laa lépp loo def itam maa ngi la koy seedeel waaye su ma demee duma ma delsi de kon seetal lu la soob loo xam ne bu ëllëgee fekk nga ko bëgg nga ko fekk ci say balance loola fexe koo def ci ci man fexe koo def ci bis boobu bu ëllëgee danga nga ko fekk loo yeexe nag ci aw yiw ba ma dem man jeex na duma ma del siwaat juróom-benneel ba bokk na ci yi dimbali nit ki ci mu fàttaliku fonk waxtoom mu fàttaliku waxtu wi nga xamee ne mi ngi ci sukuraat ndax dara doxatul digganteem ak faatu mu wóor ko ne ak génn àddunaam wér na tey wóor ko ne ak jubloom àllaaxira wér na muy wax cim xelam ne ak a neexoon ñi mayaat ma benn bis wala ñaari fan ngir li ma defoon ci yàqu ak ay njaaxum ma mën koo dab dabaatal ngir li ma faatoon ci aw yiw ma mën koo delloosiwaat waaye fekk booba wéy na paase na li nga xam ne defu ko ci aw yiw duutu ko mën a def loolu su ko jaamu yàlla bi dee fàttaliku am yaakaar ne ci kanamam bisa nga fa wala sax amaana mën naa dundaat ay bis ci kanam walla mën wala mën naa dundaat sax weer wala sax nag am at wala ay at kon kooku dana gaaw xiir ci yu baax ya mu di ko def ci bis yi bala ñëw jàll jàpp ne li ko dese daf ko war a def ci lu baax moo tax ci aaya alquran bu borom bi tabaraka wa taala mi ngi li ñi nga xam ne ci lu baaxul lañ nekkoon ba dee dikkal leen mu ne xata ida jaa axadahum almawt qaala rabbi irjiun day dem ba mu wóor ko ne dee agsi na mu ne yàlla yàlla nag ma delloo da nga maa waroon a delloowaat do laalli amalu saalihan fi ma tarakt ndax ma mën a def dara dara lu baax ci li ma rawoon mu ne kalla innaha kalimatun huwa qailuha nee na loola de ay wax rek la wax ju tekkiwul dara waaye delsi gi moom duutu mën a am ndax am na lu dox digganteem ak delsi loo xam ne du dañ mukk yowmal qiyaam rek bu xasee faatu jeex na foofu lay dekkiwaate di dund waaye duutu del siwaat kon yii ay mbir la yoo xam ne benn bu ci ne mën naa dimbali jullit bi baaxee ko ngir mu mën a fonk waxtoom amaana jullit bi nag mën naa bëgg a fonk waxtoom waaye yan yëf lay def ngir mu mën a fonk waxtoom nga xam ne wóor na ko ne lii su ko defee waxtoom sànkuwut yooyu ma ne bari na lool jullit bi mën na ko organiser fexe ba di ko xeetale bu defee yii tey boo léegi mu def yi bu defee yum ci mën a saxoo it mu di ko saxoo li ci jëkk mooy jàng téere bi yàlla bi lépp lu aju ci alquran muy jàng ko ak xam li muy wax ak jéem koo jëfe na ko wóor ne loola du waxtu wu sànku moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ki gën ci yéen mooy ki xam lu alquran jàng ko ba noppi di ko jàngale kon lépp lu aju ci alquran rek ci jàng ko ak xam ko ak jëfe ko kooka ci li gën a baax ci yi ñuy dundale waxtu jullit ci la bokk bokk na ci yooyu sàkku xam-xam mooy sa waxtu wi nga fexe ba bis bu set nga dolliku dara ci ab xam-xam ngir nga mën a dolliku dara ci jëf jàngiini xam-xam yi nag bari na mënees naa jàng xam-xam ci teew ca béréb ba ñuy jàngale nga ñëw toog boroom xam-xam ba jàngal la kooku mooy jàngin wi ci jiitu mënees naa jàng xam-xam ci jël téere yu am njariñ nga yor ko di ko jàng ginnaaw jàng nga ba mën a xam nga jàngal ko sa bopp kooku ci bunti jàng xam-xam yi la bokk na ci yi ñu jànge xam-xam it déglu déglu nag léegi dem na ba àgg na ci ay kaset àgg na ci rajo àgg na ci yeneen ak yeneen yoo xam ne nit ki mën na ca déglu kaset yu ko amal njariñ dolli ko ci xam-xam bokk na ci yi ñuy sàkkoo xam-xam te muy bu am solo itam moo di laaj boroom xam-xam yi lépp loo xam ne xamoo ñu tontu la nga man koo takk kooku ci xeet yi jàng xam-xam yi ci la bokk waaye jullit bi ne dafa bëgg a dund diineem bëgg a nekk ab jullit te téewewul jataayu xam-xam jàngulub téere dégluwutub kaset laajut boroomub xam-xam xanaa nekk rek ci àdduna yi keseem kooku wax dëgg yàlla bu waxee ne jullit bu bëgg xam diineem la it kooku bëggutu xam diineem ndax waxtoom ma ngay sànku ci mbir yoo xam ne mënoon na ko feesal dell ak njariñ bokk na ci yi ñuy dundale waxtu yi itam tudd yàlla tudd yàlla ci fàttaliku ko ak tudd ko ci sa làmmiñ kooku nag day mbir moo xam ne mën naa taqoo ak doomu aadama ji ci lépp lu muy def lu ne ma ngay xalaat daggan nga ak ñàkk gaa dagan kooku mu ngay bàyyi xel boroomam waaye di tudd sa boroom ci bërëb yu laab yi itam fu ñu ko mën a tudde nga tudd ko ci sa làmmiñ fu ñu ko mënta tudde nga bàyyi ko xel ci sa xol loolu ndimbalul sunu borom tabaraka wa taala ndax nit ki mën naa nekk ci liggéeyam kat te teewut aw làmmiñam ma ngay wax lu baax ma ngay tudd yàlla moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi amee kenn ci saxaaba yi muy ab kaw-kaw bu ñëw ne ko yow yonent bi yàlla bi man de damaa gis ne lislaam yim bëgg ci man bari na lool yépp mënuma leen a def kon damaa bëgg nga wax ma loo xam ne danaa ci mën a jafandu mu jëriñ ma mu ne ko ah, fexeel ba saw làmmiñ fu mu toll mi ngi tooy xepp ci tudd yàlla laa yazaalu lisaanuka ratban bi min dikrillahi azza wa jal foo toll fu ne saw làmmiñ na tooy xepp ak tudd yàlla kon jullit bi fu mu nekk fu ne mën na fu mu fàttalikoo tudd boroomam tabaraka wa taala moo xam laa ilaha illa allah moo xam astaghfirullah moo xam leneen moo xam leneen bokk na ci yooyu yi ñuy dundale waxtu yi itam dundal ko ci ay naafila naafila yi bunt bu yaatu la boo xam ne nit ki mën na koo toppi boroomam mën na ca dolliku ay tuyaaba mën na cee yar itam bakkanam te it naafila yi moo xam julli la moo xam koor la day réparer li manqué woon ci farata yi nga doon def la gën a rëy ci ay njariñam nag moo di naafila yooyu sabab la buy tax borom bi tabaraka wa dem ba bëgg ab jaamam dem ba bëgg ab jaamam moo tax dafa wax ca xadis ba ne ko Buxaari génnee mu ne sama jaam bi du dañ di di ma gën a jege ci ay naafila nee na ba ma bëgg ko te su ko borom bi tabaraka wa taala bëgg kon kooku ni mu ko waxee su ñaanee mu nangu ko su musloo mu musal ko su fegoo mu fegal ko kon loolu bunt bu am solo la ci dundal waxtu yi bokk na ci it nag saxoo di laabiiri jullit ñi ci woo leen ci lislaam ak njub di leen jégal lu baax di leen tere lu bon di leen laaye biir ndax kat loolu moo doon liggéeyu yonent yàlla yi woote ci lislaam ak leeralal ko nit ñi génne leen ci lëndëm dugal leen ci leer kooku mooy doxaliinu yonent yi sallallahu alayhi wa sallam jullit bi day fexe ba loolu mu am ab cër ci ay waxtoom yoo xam ne daf ko koy jagleel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi dafa ne ko qul waxal ne haadihi sabili nee leen lii mooy sama yoon lan mooy adoo ila llahi damay woote jëme ci yàlla jëme ci diineem ji ala basiratin woote nag bu ànd ak xam-xam man ak képp ku ma topp loolu mooy sa yoon kon kon yoonu jullit day xam lu diine xam ko di ko xamle di ca woote di laa biiri jullit ñi ci kaw yërëm leen kon mbokk jullit bu nekk war naa xër ci loolu war naa fexe ba waxtoo mu jagleel ko ci laa biire mépp mbokk jullit boo xam ne gis na ko mu jëm ci loo xam ne xam na ne lii lu koy lor la bokk na ci it nag yi ñuy dundale waxtu it fekk sànkuwut mooy ziyaare jege ñaale yi ci wàllu mbokk ak jokkoo ak bokk gi dox sa diggante ak ñoom mbokku deret ndax loolu sabab la ci tax borom bi tabaraka wa yërëm jaam bi ëllëg te sax sabab la buy yokk wërsëgu nit ki jokku bokk ci wax ju rafet walla ci jëf ju rafet wala jóg seeti wala defal sax mbokk mi lu baax ci sa am-am walla ci sa man-man day tax mu yokk sa wërsëg day tax itam saw jeexit rafet maanaam tudd wañ lay tudd doon tudd yoo xam ne yu rafet la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadisu Buxaari daf ne képp ku bëgg ñu yaatalal la sa wërsëg képp koo xam ne bëgg nga ñu yàggalal la lool saw fan wala saw jeexit wi nga fi bàyyi man fee nekk di wéy rek ku la tudd wax lu rafet nee na fal yasil rahima na jokk ak bokkam kon jokk ak bokk ci diine ji la bokk ci yi nit ki war di def la bokk mu doon jaamu yàlla waaye nekkul mukk waxtu woo xam ne waxtu wu sànku la bokk na ci yooyu itam yi nga xam ne jullit bi dana ko def mu amal ko njariñ lool ci waxtoom tànn waxtu yi nga xam ne mooy waxtu yi nangu yi nga xam ne ci la borom bi tabaraka wa taala di gën a nangu jaamu yàlla yi ak ñaani yi mu di ko dàkk comme su jullee ba sëlmal lu mel ne diggante fa ñuy nodde ak fa ñuy liqaame lu mel ne sulus bi mujj ci guddi gi muy guddi gi bu ñu ko defee ñetti xaaj xaaj ba ca mujj waxtu julli la waxtu ñaan la waxtu tudd yàlla la muy su déggee ñi nodd itam ba mu ànd ak kay nodd wax ba àggal julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñaan foofa itam kooku ci waxtu nangu yi la bokk diggante fi ñuy jullee fajar ba kero jant bi fenk foofu ci waxtu yiw yi ci la bokk kon yooyu waxtu ay waxtu la yoo xam ne xër ci di ko fonk fexe ba ba di ca tàbbal ay jaamu yàlla dana tax ñu ful ko dana tax mu amal boroom njariñ ëllëg mu fekk mu doon ab yool bu baree baree bari nekk tuyaaba ju yaatoo yaatu bokk na ci yi amal njariñ nit ki itam nag jàng yu koy amal njariñ nag fii ci wàllu àddunaam loolu mën naa dugg ci ay xarala yi nit ñuy jàng tey ay formation yi nga xam ne nit ñaa ngi koy def di xarala di man yuñ mënul woon moo xam yu jëm ci informatique la wala yu jëm ci xarala yi nga xam ne jamono laaj na ko tey laaj na jullit bi jéem cee man dara làkk yi nga xam ne doomu aadama yaa ngi koy làkk ci kaw suuf muy soxla di jaxasu ñoom di wax ak ñoom itam fexe ba dégg ci ay làkk yu am njariñ loolu it lu ko amal njariñ la fexe ba jàng yitam ci xeeti métier loo xam ne dana ko mën a fegal muy tàllal loxoom wala muy taxawaalu wala muy dugg ci yudul noona wala muy lor boppam kon yooyu itam yu mat a bàyyi xel la jullit bi bu koy jàng na rafetal yéeneem fekk dafa bëgg a jëriñ boppam waaye dafa bëgg a jëriñ itam ay mbokki jullitam kon daal mbokki jullit yi loolu lenn la ci ay mbir yoo xam ne mën naa dimbali nit ki ci mu xam waxtoom fonk ko teg ko fi mu ko war a teg waaye lenn la ci ay mbir yoo xam ne itam nit ki war naa jéem a góorgóorlu ba waxtoom mu di ko ci def da nag nit ki munta jóg rek ne yi ma dégg yépp fas naa ko yéenee def ndax du yomb waaye tànn ci yee jàppandi nga yar ca sa bopp ndànk-ndànk fexe ba muy yokku di yokk ndànk-ndànk nga gis ne yaa ngi jëm kanam loolu mooy jubluwaay bi yal nañu ko borom bi tabaraka wa taala jàpp ndalal allahuma aiz al islaam wal wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir aadaa ad din allahuma farrij hamba almahmumina min almuslimin wa nafis karba almakrubin waqdi dayna an almadinin washfi marda almuslimin allahuma waffiqna lissalihati qabla almamat wa arshidna ila istidraki alhafawat min qabli alfawat wa alhimna axda alcuddati lilwafati qabla almuwafaa wa najjina yowma alcuburi ala alsirati xiina tansakibu alcabarat allahuma la tajcal addunya akbara hammina ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله